ma feebaroon ma feebaree ma dem hôpital bi ma demee hôpital ñu defal ma ay rajo ne ma man sama yaram bi day metti gis benn feebar daal ma laal leen ndax feebar boobu day wér ñu ne ma feebar boobu du wér ma leen ah ñu ne ma waaw mu ne ma da ngay ñëw daal nga def say traitement ma ñëwee ma def samay traitement mu continuer continuer continuer léegi ma xam ne moom nee nañ ma comme du wér léegi ma ne xaar ma xool ñi nga xamante ne dañuy fajaate waaw ci laa def dugg ci net bi ci YouTube bi di xool ñi nga xamante ne dañuy dañuy dañuy fajaate daal waaw ci laa ci laa gis vidéo yu bari ci soxna Nafi Fallou Fall ma gisee ay vidéo ak ni muy waxee ma xam ne kii dafa dugg ci li muy def daal bokkut ak ñeneen yi waaw noonu laa def ma jëloon numéro bi ma ciy wootee lu yàgg mun a munaguma woon ñëw nag mais daan naa woote pour ñëw faju léegi nag bi ma amee temps laa ñëw ci moom te bi ma ñëwee ci moom benn fan rek laa gis ay kemtaanam ndax ba ma ñëwee butéel bi ma njëkk a jox ma naan ko jour boobu dama dellu balaa maa yegg sama kër ma jënd butéelu 10 litres yóbbaale ko teg ko ndaxte moom li may faj foofu la ko daan jaaralee daal ci butéel boobu léegi bi ma demee jour boobu la sama jabar sax moom tam mu commencé yéemu parce que mu ne ma mënatuma woon yor lu lu diis te bi ma demee keroog dix litres bi maa ko yor yóbbu ko mu ne ma ndax nit moo la ko indi ma ko man maa ko indil sama bopp ak ah, moom après moom ci la bàyyi xel nag li nga xamante ne moom mooy soxna na fi fàllu fàll ndax wax dëgg yàlla li muy def mun na ko lool waaw ba léegi bi ma bi ma toppee traitement bi même pas cinq jours daal ma sentir sama yaram li doon métti yëpp ba nga xamante ni tuut moo ci desoon mais loolu au fur et à mesure may dem ba balaa weer ma def weer sax li li doon métti yëpp bàyyi carrément te dama chaque jour saa yu ma yeewoo saa yu may plus may may gën a dem may sentir daal muy gën a muy gën am wér gi yaram daal muy gën a yaram bi di gën a bàyyi carrément may sentir leneen la nga xamante ni daal mooy loolu daf may may doole macha allah moom daal li muy def daal mën na ko lool lool lool ni ma ko gisee woon ci bi di gis ay témoignages ñoom fajee ba légui mané nga man damay def témoignage ndax mo man musuma ko gis musuma ko dégg fenn ci youtube bi la la nga doon gis di gis nit ñi di ci wax mom mu tamit mu ci wax wa ci la xamné dal am yëg bu bu bu bu sotti ci mom dal non la def rek ma juwal si ci mom ko gisoon na ñu bari do na dégg daal ñu bëri mais mom dal momu ci do te ba ma ñëwé tamit la nga xamanté mom la laa ci mom lool la gis ci mom waaw lepp doon dëgg mo ba légui moom daal li muy def daal wér na daal macha allah ku ko